bonsoir seen internet plateforme web info TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Ah, di leen kontaanee eh, di amaan mbégte ak ah, contentement bu bëri bëri di jàkkaarloo yéen a chaque fois comme ni ñu ah, faral di defee lépp li nga xamante ne war nañ toog daal di koy leeral askan mi dañ si sawar loolu daal di si ñëw daal di si dikk ak yéen avant tout ñu ngi baax a baax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo féetewu foofu sa bitim réew ñu naan leen les sénégalais leen di nuyu di leen eh, seen doom seen xarit di Aba le maa ngi nuyu toute l'équipe yi nga xamante ne ñu ngi ñuy ñoom ñoo nekk si ginnaaw di liggéey di def si liggéey bu am solo di waa web info tv moo xam technicien ba moo xam caméraman ba euh, ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane bu baax a baax alors euh, fi nga xamante ni moom euh, benn restaurant boo xamante ne doomi Grand Dakar moo ko moom doomi NGB kon donc c'est bien beau saa ñu fi toogee di si ñëw di si def émission ñu daal si bi su ko defee mbokk yi nga xamante ne ñu ngi seetaan ñu fii faral di ñëw daal di koy dooleel bu baax a ñu ngi fi nga xamante ni ay jigéen leen te vraiment ay jàmbaar leen vraiment ñu ngi defal lu am solo si li nga xamante ni moom mooy euh, si réew mi di dimbali euh, seen i euh, moromu jigéen bu baax a baax ñi le mouvement GIE dooleel jigéen leadership et développement féminin muy lu am solo waaye donc man dama waroon siis sax ah, dama waroon siis ndaxte féminin la dama waroon siis waaye waaye lu mënta ñàkk rek xam nga faaw ñu toog rek euh, ñu daal di def euh, lu nga xamante ne sénégalais bu ne bu si tegee bëtam dina di xam ne ni xale yu jigéen ñi euh, ñu ngi si def liggéey bu am solo coordinatrice bi di Amina Fall dama koy jox mu daal di nuyoog suñu téléspectateurs yi nga xamante ni ñuy bàyyi xel fii si web info Amina maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax a baax bu baax a baax. Ah, macha allah mbokk yi ñuy seetaan. waaw vraiment di leen sant di leen gërëm di nuyu waa info bu mhm, mhm. invitation bi. merci beaucoup. di wax Aminata la coordinatrice du mhm. groupement Doole Jigéen. accompagnée par Pendo. Penda Dieng. la chargée de relations extérieures. groupement bi. groupement GIE Sira waaw. moom mooy chargé foofu sa bitim réew. waaw waaw. <laughs> Eh, eh, kon dinaa dem. ah daa mel ni war nañoo mën a génn de instant kontaan nga ba noppi. kontaan macha ñëpp. ayca ayca waaw di remercier ñëpp di sant ñëpp daal. ñu tàmbaleeg jàmm. merci beaucoup alors borom chargé extérieur maa ngi lay nuyu. maa réew a tukki a nga nuyoo mbokk yi seetaan fii si Web bu baax baax. di sant. te tamit euh, di nuyu askan wi yëpp mm-hmm. di nuyu waa groupement dooleel jigéen mm-hmm. ñoom ñëpp lépp rek ñoom la mm-hmm. waaw lépp rek ñoom di sant tamit suñu président bu baax a baax ci liggéey bi macha allah alors ñu ngi koy kontaanee comme dama lañ ko waxee mbokk yi ñoom benn mouvement la boo xamante ne euh, dañuy dooleel euh, seen i morom yu jigéen mouvement bi nag yàgg nay def ay activité première édition deuxième édition ba tey troisième édition tey nag li nga xamante ne moom mooy seen quatrième édition bi nga xamante ne ñu ngi koy waajal wala balaa ñuy xuus si li nga xamante ni moom mooy seen quatrième édition bi dañuy ñëwaat tuuti rebondir si li nga xamante ni moom mooy mouvement euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, dooleel jigéen di GIE bi euh, ban année la juddu tey jii ba tey ngeen am dëgërlaay bi aminaaw waaw waaw waaw mhm. dooleel jigéen mhm. ay ndaw ñoo ko créé ay femmes mhm. vraiment yu dynamique yu engagé ay femmes yu motivé ay jigéen dëkk mën naa ne fépp fu nekk si Sénégal ndax c'est au national. Mhm. waaye nag siège bi ñaari tali la fii. Mhm. Grand Dakar fi la sosoo. Mhm. fii la tàmbalee fi la dooree. ba tax tey mu mën a tas ci Sénégal gi yëpp. mën naa ne bañ ko sosee ak léegi. xëy na bii mooy suñu quatrième édition. ñu tos ko depuis 2019. fii 600 village 661. ñaari tali. mooy nga xam ne mooy suñu cosaan. mooy suñu siège. waaw GIE Dolli Jigéen. ay ay femmes. yu engage yu am gëm-gëm. ñoo ne nañu boole seen force. boole seen alal. boole seen gëm-gëm. liggéeyandoo yëkkateendoo dóorandoo. looloo waral tey sos ko. waa gis ne suñu maman yi ñoo ngi si. tey wax dëgg yàlla balaa ñuy toog bay am ay 60 ans 50 ans 40 ans. di door a dugg si développement ci leadership. pourquoi pas ñu commencé ko à bas âge. di si teel a taataan jigéen ñi di si teel a. yee ñu deel a comprendre lan mooy concept leadership lan mooy concept développement lan mooy mhm. développement mhm. de suite lii moo waral GIE doole mhm. jigéen alors c'est pas facile c'est pas évident aussi nga daal di teg euh, seen première euh, édition euh, ba tey ji yàlla sàkk di lañ jàppale ngeen daal di di waajal di def quatrième édition ndax mbir mi yomboon na te c'est pas facile nga daal di teg li nga xamante moom mooy GIE di jàppale say moroomi jigéen te ku ne kenn ku ne xam ne ni jigéen ak moroomam loolu rek <laughs> ak euh, ba deuxième ba troisième ba tey ñuy waaj quatrième mm-hmm. euh, yoon bi euh, bëri woon na xaaxam waaye teewul ak góor góorgóorlu ngeen bu baax a baax booy ñëw si tragédie yi nga xamante ne jaar ngeen ko waaw waaw mm-hmm. waaw comme ni nga ko waxee ànd jigéen moom mm-hmm. yombul metti na te yenn saa yi moom vraiment buñ nangoo rek xam ne xam ne day metti lool sax waaye dooli sant yàlla ndax nga jàpp daaw ba ren rek loolu as goro ko moom mhm, kon ñu nekk nekk ay jigéen terewul mhm. am nañ gëm-gëm bi am nañ bëgg-bëgg mhm. ndax tedd yi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ci saal toog waxtaanee ko créer ko mun naa si cité Pendo Sira ainsi de suite mami mi quatre ans tey tedd yooyu lañ fi gis ba tey ji kon loolu rek coloré la loolu rek jàppante la xëy na nag malgré fi ñu jaar ba ñuy sos première édition deuxième édition yëpp si biir koñ bagaar lañ ko doon defee doon góorlu ak suñuy moyens. Mhm. te OTS di def yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. tey jii ñu mën a génn. Mhm. troisième édition bi defee ko fii ñaari tali ci esplanade bi. mu nekkoon loo xamante ne yombul woon ndax woote rek daa metti sans compter yeneen ak yeneen yi nga xam ne war ko koo développer en terme de perspective en terme de réalisation. nga siy jéem chaque année. nga ne déedéet du ma xaar ak ba at. ci diggante bi damay xool yeneen ak yeneen lu si xaj rek mhm. ma def ko ci mhm. ci lool nag ñuy ñuy dajale suñuy moyen mhm. di dem ak suñuy pepp pepp daal ba tey jii nii macha allah ñu mën di àgg si suñu quatrième édition di ko defee waat ci esplanade bi nii en face ko ñu bagaar ci buntu koñ bi. Mhm. kon sant yàlla la daal avancement la. waaw ba tey macha allah alors merci beaucoup ñu ngi kontaan bu baax a baax mbokk yi ñi nga xamante seetaan euh, si seen plateforme web info TV dégg kàddu yi nga xamante ne na ko waaye du ma ko bàyyeegum damay daal ñëw euh, suñu jigéen. Euh, Pendo borom borom extérieur ah. <laughs> alors ñëw dama lay question si li nga xamante ni moom mooy produit yi nga xamante ne yéen ñu ngi koy jàppale si seen moromu jigéen xanaa yéen produit yi nga xamante a dox ba tey à chaque fois di kontaan euh, pour répondre lépp li nga xamante ne. Mhm. c'est au niveau du groupement mhm. doole jigéen. Mhm. parce que 4 ans. yaakaar naa ne wax nañ ci mën a jàng lu bëri. wax nañ ci mën a xam lu bëri. yàlla dafa dogal tey man maa fi toog. waaye bépp membre doole jigéen. képp membre bu ne question boo ko ci posé dina la tontu. macha allah waaw doole jigéen euh, produit yi ñu ci am. dafa dafa bëri. parce que ci li ñuy ci li ñuy njëkk nekk sax mooy développement. Mm-hmm. développement bi. Mm-hmm. ñu ngi koy njëkkee ci suñu biir. ñu ngi koy mm-hmm. njëkkee ci suñu bopp ci ay financement ci ay formation yoo nga xamante ne tey jii ñu ngi ñu ngi koy jëriñoo. ci biir dooleel jigéen. ñu ngi ñu ngi ñu ngi indi ay nit maanaam tey jii ñu nga fekk nit bi nga xam ne tey jigéen. Mhm. dafa toog ci rukkam. Mhm. nekk ci détresse nekk ci stress boo xamante ne angoisse. Mhm. tey jii képp ku dugg ci biir dooleel jigéen rek. yàlla teggil na la loolu. parce que jàmm ji ñu njëkk a woote. parce que comme ni nga ko prési waxee ànd jigéen dafa dafa metti mais yàlla nag mu ngi ñuy suturaal. boobu ba tey amaguñ ci benn problème. ñu ngi góorgóorlu ñu ngi jàppante. ñu ngi fay def ay jenc daal mhm. ak euh, jenc tabaski mhm. ñu ngi fay def ay kii yu bëri daal yoo xamante ne tey jii ñun jigéen ñi ñun ñëpp ñu ngi ciy gis suñu bopp mhm. euh, yéen jigéen yi yéen ñëpp yéen siy gis seen bopp du tee des fois euh, ay xat-xat yi ndaw daal leen di dab te yooyu bu leen dabee ndaxam boo leen toogee waxtaan seen i biir di ngeen trouver benn terrain d'entente boo xamante ne du du yàgg daal waaw nee na ñi mën a ànd rek la ñu boole groupe bi dafa nekk loo xamante ne dañoo fonk kilifa ñun ak xooluñu kii moo mag ak kee moo gën a ndaw li ñu xool mooy que ne ñun ñëpp benn la ñun ñëpp a maase euh, niveau niveau de vie bi ñuy mën mëne ñun ñëpp ñoo si ñoo si tolloo euh, am nañ ci cër nag bi nga xamante ne tey jii muy man muy Amina muy ñeneen tamit ku si ne am nga cër ci sa morom ba kenn bu jànkantolee dara ci biir group bi dañuy toog waxtaanee ko euh, trouver ay solution ci biir groupe bi voilà ñu ñu régler ko lépp au sein ju du du groupement mhm. surtout si groupe euh, whatsapp bi parce que mhm. groupement bi dafa am groupe whatsapp am mhm. groupe facebook ak yëpp am ay tête yi nga xamante ne réunion bu amee ñoom ñooy gën a présent mënul ñàkk mais tey ji problème bu amee dañuy toog waxtaanee ko ñun ñëpp. Mhm. ñu réglé su problème bi. Mhm. alors macha allah kay loolu am na solo ah vraiment mais dañuy ñëw si beneen point bi ndaxte bu ñu nee jigéen il faut que euh, mbokk yi nga xamante ne ñu ñuy seetaan euh, actuellement ñu daal di xam ñu euh, si ñaata membre ngeen toll si si si jigéen maanaam groupe bi ñaata ñaata ngeen. en tout cas sur Facebook. Euh, on est milliers foofu bëri nañ fa torop sur Facebook. mënuma mënuma am sax nombre carrément. si si GIE bi lañ nekk mais sur WhatsApp peut-être que moo gën a euh, fermé wu. Mm-hmm. sur WhatsApp parce que xam nga rek loo gis dañ koy sécuriser dafa am ay mm-hmm. de sécurité yoo xamante ne tey jii ñoom ñoo nekk ci WhatsApp bi. Mm-hmm. ñoom mooy dooleel jigéen. mun ñu groupe bi du dem sans sans sans ñoom. sans ñu nekk ci biir WhatsApp mooy membres yi nga xam ne tey ñoo gën a ñoo gën a taxaw ñoo gën a dëgër. tey ñu ngi fa 300 membres et quelques. sax waaw. ci Facebook bi. Hmm? ñu ngi fa waaw. <laughs> ñu ngi fa ah. <laughs> te boole woo si waa extérieur. non ñu ngi ñëw de <laughs> ñu ngi ñëw de. ñu ngi ñëw day am nañ ay membres yoo xam ne tey jii mën nañu sax ah. représenté foofu. parce que fii lañ nekkoon si si. Ah, macha allah am nañ ci de am nañ ci yoo xam ne fii am nañ nekkoon. dëgg yàlla macha allah Aminata Sey Astor bii la dëkkoon première édition bi deuxième fii la ko fekk tey moo ngi États-Unis mm-hmm. benn jili mi mm-hmm. nga xam ne Touba la dëkk mm-hmm. bon moo chargé woon ci communication digitale plateforme Facebook bi instant yi mu France macha allah ah? instant yi ah, allah macha alors alors bu ñuy ñëw euh, Amina. Euh, gannaaw ba nga ba sa Pendo développé euh, yu am solo yi nga xamante ne question yu am solo yi nga xamante jox naa ko mu daal di koy répondre defe naa ne suñu mbokk yi ñuy seetaan dégg nañ lu ni mel. alors dañuy ñëw si li nga xamante ni moom mooy jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si groupe bi ndax day baax ñu daal di koy leeral su ko defee mbokk yi nga xamante ni ñu ngi seetaan ñu daal di xam un partout si 14 régions yi Sénégal yëpp ndax am ngeen fa ay membres. GIE mm-hmm. Dolli Jigéen. waaw GIE dooleel jigéen moom instant yi wax dëgg yàlla màgg na. Mhm. ndax comme li ma doon wax léegi rek bu demee ba. Mhm. ñoo xamante ne fii lañ dëkkoon. Mhm. sa soo fi tey ñuy dem bay tukki. di représenter GIE bi foofu kon macha allah màgg na. nekkatul Dakar nekkatul Thiès kase. mais c'est au niveau national. ndax tey am nañ ay membres yoo xam ne ni Saint-Louis. créé nañ plateforme dooleel jigéen. Saint-Louis. créé dooleel jigéen Mbacké. créer dooleel jigéen Thiès. xam nga créé. dooleel jigéen aussi. Mhm. Fatick. Fatick kon ñooñu noonu ñu ngi may dégg. Mhm. xam nañ ne bu baax que ni. Mhm. lii lu royal la. ñoom ñoo jëlal seen bopp initiative. teg plateforme bi foofu. ne ñun dinañ taxawal dooleel jigéen. fii ñu nekk malgré déplacement yombul ndax jigéen. tamit du oyof si mhm. déplacement mhm. waaye tey doole jigéen bi ñuy wax nekkatul Grand Dakar nekkatul ñaari tali mhm. mais mën naa ne doole jigéen fépp la tey jii au niveau national waaw alors si si li nga xamante ne moom mooy seen euh, troisième euh, édition bi nga xamante ni euh, jotoon naa ko assister l'année dernière ñu gis ñëpp ñi nga xamante ne ay brave dame lañ nga xamante ni ñi ngi def dara si réew mi assister woon nañ ko je peux citer ñenn ñi nga xamante ne tamit invité nga leen si si si quatrième édition bi ñoom tamit euh, di waa gilet euh, orange Sénégal euh, sa rapport ak ñooñu lan la. waaw macha allah. Mhm. mën naa ne yow yaa ko waxee sa bopp. Mhm. fekkee ne woon daaw. Mhm. waa grande Dakar ñaari tali NGB ñëpp jàpp si. ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu sa gox bi sax jàppoon nañ si bu baax a baax a baax. waaye nag. xëy na lu mel ni gilet orange. lu mel ni NGB bi ci restaurant bi ñu nekk. ñoom dañ see gën a fës. ndax daaw chaise yi toog yëpp ñëpp xam nañ ne waa restaurant NG waa NGB. Mhm. équipe bi xam nga mën naa see tudd Médoune. Mhm. am si taxawaay bu am solo. macha allah daaw daf ñoo jàppale ci chaise jàppale ñu ci lu nekk. wax dëgg yàlla ñu ko si sant di ko si gërëm. di si sant aussi ku mel ni gilet orange. Mhm. ndax suñu paree nii rek la mi nag ñuy xaar. fii nii ñu war a. mën na taxawal. Mhm. te ndax moom moo chargé organisation waa Gilet Orange. Mhm. waaye ñëpp xam nañ ne. Mhm. Jules Thiongane moo ko moo mooy ki nga xam ne moo ko coordonné. mu jàppale ñu si bu baax a baax a baax. dooleel ñu daaw dañoo def déplacement bu am solo. ñëw teew ci bës bi. toog jël kàddu. gën a incité jeunes yi ñu gën a booloo gën a jàppoo. gën a jàppalante. looloo waral ren tamit ba mu amaatee ñoom dañ si amaat cër bu gën a sori bi ñu amoon daaw. Mhm. ndax ren lépp lu jëm ci organisation bés bi. Mhm. tey mën naa ne waa Jules Orange lañ ko jox. Mhm. ndax ñoom ñoo ñun duñ si laal daal. ren ñoom ñoo yor jàpp naa ni euh, mbir mi dana organisé maa ngi profité ah. di nuyu wala seen président de Jules euh, ko jaajëfal bu baax si liggéey bu am solo bi nga xamante ne moom koy atteindre au niveau de Grand Dakar ñaatali euh, biscuiterie ñu ñu rebondir un peu si autorité yi nga xamante ne ñu ngi fii au niveau de Grand Dakar ak biscuiterie yi euh, ndax li nga xamante ne moom mooy GIE bi ndax ñoom ñu ngi taxaw bu baax di la si jàppale. Ah, na loolu damay bàyyi sax relation extérieure ku mel ni Penda mu développé si ah, li nga xamante ni euh, question bu ma jox léegi Amina euh, ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy homme politique yi nekk fii si au niveau de Grand Dakar de aussi de Biscuiterie mhm. ndax ñi nga am taxawaay bu baax a baax si li nga xamante ni moom mooy GIE bi GIE bi ah waaw mën naa ne lépp li nga xamante ne dañ la dee ñaaxaat rek mhm. déjà mhm. ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci commune bi mhm. diggante Grand Dakar Biscuiterie yi Euh, autorités yi ñu ñu taxawal ñu jàppale dooleel jigéen bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey jii dooleel jigéen seen produit la. Mm-hmm. bu avancé euh, dañ naan dooleel jigéen Grand Dakar. loolu la ñuy wax donc ñoom li ñu ci jàpp rek. nañ ko nañ ko xeeb bu baax. nañ ko xeeb bu baax. man du ma taay nag di wax dooleel jigéen dafa nekk mouvement boo xam ne ba trop quatrième. Euh, suñu yaakaaru bopp la ñuy demee. suñu poosu bopp la ñuy demee. suñu jëfu bopp la ñuy demee. gisaguñu benn autorité. ren nag am nañ ay audience yu bëri. ci ah g e bi waaw. ci extérieur am na <laughs> am nañ ay audience yu bëri ni yoo xamante ne si autorités yi la uh-huh. bëri nañ uh-huh. au niveau Grand Dakar ak Biscuiterie yi uh-huh. dem nañ tamit euh, répondre audience yi euh, joxaale nañ leen seen carte yi yi nga xamante ne carte invitation am na ñoo xam ne parrain lañ am na ñoo xam ne ay marraine lañ ñu invité ñu ñu ñëw ñoo xam ne pour ñu présenter wu ñëw ci bés bi dañ leen di incité nag pour ñu ñu ñu présent bu baax a baax waaw alors ñu ñëw xam naa ne booy jëli ji carte yi ñooy ànd mmh. <laughs> lu mënta ñàkk la dafa am yëg lu mënta ñàkk la yëg luy dugg de alors bu ñu ñëwee bu rebondiree encore une fois ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk foofu sa bitim réew euh, ndax tey ñoom ñi ngi am euh, liggéey bu am solo ba nga xamante ñu ngi ko fay def ngir di indi loo xamante ne mhm. projet mouvement bi aussi mhm. Mhm. dëgg la waaw ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fa nekk dañoo représenté am na ñi nga xamante ne sax dañuy dañu lay woo mm-hmm. ne ah ñun de nu ñuy def ba euh, nekk ci GIE bi nga xam ne comme ñun événement bi ñuy def mm-hmm. ñoom ñu koy mën di def foofu noonu mm-hmm. ñu koy defandoo ak ñun foofu mais xam nga lu nekk rek ndànk-ndànk la comme yegg bu ñu fenn dañuy patiente ñu yemagum Sénégal rek tuuti ah, <laughs> ñu yemagum Sénégal rek <laughs> yàlla baa non dina ñëw euh, dina ñëw euh, Ah, ba tey si quatrième euh, édition bi. Mhm. ñu ngi siy wàcc euh, defe naa le 6 décembre à partir de 15 heures. oui donc thème bi ngeen daal di indi l'entrepreneuriat féminin et une solution. à l'immigration clandestine mu doon loo xamante ni muy commencé ah, di bëri tey mm-hmm. si immigration clandestine bu ñuy wax ah, ñoom ñi xale yi nga xamante ni ñu ngi jël gaal gi dem dañ si nemmeeku ñenn ñi nga xamante ne ay jigéen lañ ah, te jigéen rek ñemewut coono masuma laa mu dugg si gaal daal di daal di jël mbëkk mi tey thème boobu noonu fan la la jógee naka nga toggee xam ngeen xalaatandoo thème bi daal di koy fa yéene koy indi le 16 incha allah mm-hmm. waaw Abba xam nga déjà loolu moom bu ñu si waxee suñu xol du neex. Mhm. ndax képp kuy jigéen képp ku nekk ndaw. Mhm. booy toog di di di di xool di déglu. Mhm. média yi. te li ngay gis da ngay xam ne lii neexul ci xol. ndax kenn bëggul jur sa doom am si moom yaakaar. xam nga xëy bés. ñu naan la naax na saa yi yow sax mënoo gis kooram mënoo am benn retour boo xamante ne positif na si jëmmam. Mhm. boo xamante ne di même bu dee décédé na sax di nga mën a def enterrement am mhm. kon. métti na. émigration mhm. clandestine métti na trop trop. day mhm. nag ñu dem ba. woo mhm. bi gën a empiré bu si demee ba jigéen ñu dugg si. ndax ñëpp xam nañ force jigéen ñëpp xam nañ ne. jigéen xanaa mu bañ a engagé. mais bu jëlee engagement détermination ne damay def lii rek da siy dem ba jeex. man j'ai connu pas mal de femmes yoo xamante ne. xëy na ni mu demee la mënuma leen tudd. mais gis naa leen côtoyé naa leen tey vraiment mbëkk mi lañ jaar te ma xamoon leen. gis leen. nekkoon ak ñoom. mu nekk loo xamante ne bañ nekkee Sénégal dañ doon rey seen bopp di daw di def ay vente en ligne. jàngoon am ay diplôme amuñu benn issue. ñu nekkoon lu mel ni ci doole jigéen nekk ci yeneen nekk fii lu mel ni. Dakar Plateau bien sûr wallaay Azim. nekkoon lu mel ni Dakar Plateau di daw ci marché yi ñu doon defandoo ay vente en ligne. ñoom ñu toog ba xalaat ne. war nañoo mën a jaay li ñu am. Mhm. xam nga ndax mhm. yooyu yëpp après ngay door a ko xam ñoom fu ñu jaar. Mhm. ñoo xamante ne mënul ñu xalaat ne mën nañoo jaay li ñu am yëpp. Mhm. jël naa ko yoon bi ñu defal leen ay réduction mhm. ñu am yaakaar pour bëgg a tekki tax ñu jël mbëkk mi. Mhm. xëy na am na ñoo xamante ne ñibbisi nañ xëy na jour ba dinañ jël initiative fexe ba. ñoom ñi ñëw toog. mën a expliquer incha allahu rabbi ñoom fi ñu jaar fan la. te li leen si poussé yëpp leen nekkul leen lu dul. pour li leen ci yóbbu yëpp nekkul lu dul. yaakaaru waajur. bëgg leen a teral. bëgg a say doom. xam nga ndax xëy na mën nga nekk si ménage mu dem tu dem mais ki nga xam nekk na si ménage jur doomam mën a xool nu mu bàyyee doomam fii mhm. na divorcé na mën a xool nu mu bàyyee doomam fii mën a dem uti kon xam nga ne loolu moom nekk na loo xamante ne boo koy imaginer sax danga naan mhm. lii nan la ko nit mën a xalaatee mu leer na risque la mhm. mën nga yeeg en fait comme mën nga bañ a yeeg mais danga naan du ma toog di xool samay waajur di dund li ñuy dund du ma toog di seetaan samay samay parents mhm. di dund li ñuy dund ma jur doom mu nar a ci mhm. contexte mënu ma am sax meew bu ma ko mhm. jox mënu ma am couche nga jël risque bi ndax lan ndax ñàkk liggéey ndax lan parce que entrepreneuriat bi ñu ngi naan dox na ñu ngi naan doxul yomb na yombul ñu nee nag ñu ñuy xool ba cadré l'entrepreneuriat féminin boobu noonu ci ci jigéen ñi comme si góor ñi mm-hmm. ñu xool nan lañ leen mën a jàppalee ba nga xam ne dinañ leen mën a conscientiser jour mm-hmm. boobu mm-hmm. ñu fexe ba li ñuy def fii mu dox ndax lu mel ni doole jigéen loolu ko tax a jóg ndax xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi doon liggéey di am fukki dërëm mais buñ duggee ci réseau yi ñu yaatal seen i réseau tey jii mais may leen visibilité ñoom ñu ngi seen entrepreneuriat mi ngi dox te loolu nag moo waral tey ñu ñëw jël thème boobu bëgg a xamal femmes yi ak jeunes yi ne leen mën nañu nekk ci réew mi dugg ci panel yi dugg ci lu mel ni lu mel ni FONGIP lu mel ni DER lu mel ni leneen ak leneen ñu yee leen si conscientiser leen suñu jàppale leen ñu fexe nañu réussir am na solo c'est un peu féminin warumoon sax bokk si émission bi wax naa leen ko sama commencement waaye lu mënta ñàkk la ndax moom day sama jigéen ñu am jom alors damay ñëw si Penda defe naa ni question bu ma lay jox mooy thème bi euh, thème bi ngeen ko gisee su ko defee ñu daal di terminer. Euh, nga daal di terminer foofu noonu su ko defee ma daal di jël sa beneen euh, morom. d'accord alors ci ci bi. waaw mm-hmm. thème bi mën naa wax ne que ne. Mm-hmm. dafa nekk euh, dans à à l'actualité maanaam dafa mm-hmm. xew. donc euh, jamono ji yaakaar naa mun sujet beneen bu dul immigration clandestine mënul am. faw mu am te daf ñu laalaale. dëgg la góor ñaa ngi dem mais jigéen ñaa ngi dem. jigéen ñaa ngi dem te. yéen ñu ëpp mu yéen moom boo leen demee moom dëgg yàlla garaaw moom dëgg <laughs> te neexuñu daal neexuñu parce que tey jii GIE eh. euh, euh, bu toll ne dooleel jigéen eh. mënul concevoir loolu noonu di di développer ci dëkk bii nii mm-hmm. waaw donc ñun dinañ ci xam naa ne autorité yaa ngi ciy def lu ñu mën mm-hmm. mais ñun tamit suñu côté dinañ def li nga xamante ne loolu lañ ci mën mm-hmm. nga xam ne dinañ buñ ko arrêté wul tamit dinañ ko wàññi dinañ ko wàññi bu baax macha allah c'était un grand plaisir ñu daal di lay euh, dalal loolu ngay tàggatoo waale ñu daal di jëlaat keneen koo xamante ne war na mën a see participer si li ni mel dafa war a yaatu. dafa war a ah, te bii di ñëw nag ni ngeen fexe quatrième édition bi. dugal dugal si kenn sax ngeen bàyyi féminin bi tuuti tamit. <laughs> Ah. yàlla baax na alors kayit kàddu ngay merci beaucoup mm-hmm. maa ngi maa ngi kontaan bu mm-hmm. baax a baax a baax. Mm-hmm. di remercier encore ak euh, encouragement. waa groupement dooleel jigéen. di leen encourager bu baax di leen wax ne ci li ñu jëm yàgg na. metti na mais incha allah dina ja dina jàll si jàmm ak ci salaam. bu soobee yàlla nañ góorgóorlu bu baax. merci beaucoup ah, maa ngi doon ñëw maa ngi doon ñëw ñëw yow kay ko def. <laughs> maa ngi leen di man la 16 ñëwuma sax. dama a man damaa jigéen de trop. <laughs> en tout cas merci beaucoup merci alors ba tey yéegeen si émission bi ah, ni ma leen ko waxee sànq rek ñu dalal waa GIE dooleel ah, jigéen ah, di mouvement bi nga xamante ne dañuy jàppale jigéen leadership et développement féminin ba tey ñu ñëw si organisation bi ah ndaxte lépp bu bu waree baax rek sa commencement ba la organisation bu jaaree yoon rek événement bi day jaar yoon alors suma jigéen chéri Ousmane Dabakh maa ngi lay nuyu maa nga jàmm alors ma bàyyi nga présenté wu nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. lu tax nga def ba point d'interrogation. te defoo da baax. am na waa mu tooñ de. Euh, ah ah man Ousmane yaa ma yore 2000 dégg nga yaa ma yore 2000 nag ma nag ma ko yónnee nag dégg alors bu ñu ñëwee si euh, seen événement bi nga xamante ni moom ngeen di euh, waaj quatrième édition bi euh, tey bu ñuy ñëw un peu un peu si li nga xamante ni moom mooy si mouvement bi première édition deuxième troisième ba tey ngeen di waaj quatrième ndax mën nga rebondir un peu si mouvement GIE. Mhm. parce xool mhm. lépp lu ngay def rek mhm. loo xamante ne képp la sa xol rek mhm. mën na ne du metti mais euh, le problème en ligne la comme Grand Dakar dañ ne parce que affaire jigéen lay def des fois ñuy dugg ñii naan dina dem ñii naan du dem mais ñi nga xamante ne gëm gëmoon nañ ko au début ba tey macha allah ñu ko ñu gën a yokk wax dëgg neex yàlla ñu ngi ciy sant suñu bopp parce que dañ koo bëgg dañ koo bëgg ñu def organisation bi si ci quatrième édition bi fii si devant ñaari tali bi ana tey ban taxawaay ngeen di gën ngeen si def ngir affaire yi gën a élargir nga xam ne ñaari tali képp ki doomu Grand Dakar wala kuy romb sax euh, bu seenee séenee bi rek dana mën a taxaw xool. fekk fekkee affaire bi intéressé na ko mu daal di dugg ñëw bokk si yéen. ñun waa groupe comme madame Dia. ak ñi ko waxee Lamine. Mm-hmm. Lamine bi nga ne dafa ñëw pour école ñu. Mm-hmm. ñu mm-hmm. wax dëgg baax. a defee ñooñu ñëpp ñu ngi ci. seen thème bi ngeen jël lan nga siy sànni kàddu ndax bu ñu xoolee ndaw ñi nga xamante ne ay jigéen lañ mm-hmm. di jël gaal gi di dem ñii di yóbbaale ëmb wala ñii di yóbbaale seen i doom mu doon dem thème boo xamante ne vraiment ku ko gis ah, di nga taxaw def si benn taxaw seetlu bu baax a baax. lépp lu mu dugal loo xam ne nit ñi nañ toog daal ci xel. Euh, man tamit dama seetaan benn interview. ñu mhm. wane benn jigéen bi gàddu mhm. doomam. Mhm. ci euh, gaal bi. gaal bi si ma toog. moo tax jour bi ñu waxee ci groupe bi ñu proposé ay idée. bañ ko waxee dama ne bii baax na. parce que lii dañ cee war a wax. parce que wóorul. wóorul surtout man ñun ñi nga xamante ne baax na. gëm naa ni mhm. mhm. en tout cas ñu ngi kontaan si yow di leen encouragé bu baax a baax si liggéey bi nga xamante ne yéen koy euh, nekk di ko atteindre donc lan ngay terminer si ay kàddu ban appel ngay def pour képp ku nga xamante ne yëg na lu ni mel nga daal di ñëw assister wala képp ki nga xamante ne yëg na leen ni mel mu daal di ñëw jàppale mouvement GIE Doolel Jigéen. Mhm. jigéen Eh, te jigéen tamit il ñu mm. Mm. yi nekk de mm. góor yi de ndax féminin la de wax man moom <laughs> dëgg yàlla ma see jàpp nii rek waaye pare moom sax pour ñëw waaw. ah, ah eh, féminin ngeen woote de ah ci biir laa bokk kon ma teg sama sëbërëj ñëw <laughs> xaw ma dërëm <laughs> woo eh, waa Grand eh, eh, mm-hmm. Dakar mm-hmm. mm-hmm. si alors merci beaucoup kontaan nañ alors merci beaucoup alors ñu daal di desandi ak euh, Amina moom mi nga xamante ni moom mooy euh, coordinatrice su GIE euh, dooleel jigéen Amina bu ñuy ñëw un peu si l'ex ministre de la femme de la famille du genre protection des enfants madame Ndeye Saly Diop Dieng ñu ngi koy nuyu au passage mu doon femme boo xamante ne brave dame la jàmbaar moom tamit day jàppale population au Grand Dakar waaye day jàppale képp ki nga xamante ne jigéen nga nga yor sa mouvement moo xam nga yor sa lépp loo xamante ne yaa ngi si dimbalaayu doomu aadama moom da siy ñëw daal la si taxaw jàppale si sa digganteem ak ki nga xamante moom mooy madame la ministre l'ex madame la ministre de la femme Ndèye sa Diop Dieng waaw maa ngi koy commencé di ko nuyu vraiment di ko jox wàccuwaayam. Mhm. di ko sant bu baax. di ko mhm. gërëm. Mhm. ndax yaakaar naa 2019. ba suñuy ñeenti bët di daje muy dégg rumeur ay jeunes filles créé nañ GIE doole jigéen. mu nekk mu nekkoon moment boobu ministre. xam nga mu créé woon polémique yu bari na xam nga Grand Dakar. lu xew am nekk ko da nga koy yóbbee. <laughs> mais ba ma déggee daal la may dégg yëpp. ma ñëw toog mu toog ma explique ma ne ko ah. li ñuy wax de dëgg la GIE bi de taxaw koo jóg malgré yaa ay GIE di def ay calebasses. Mhm. mais bi moom dañ ko jël def ko uniquement. Mhm. loo xamante ne daal dañoo bëgg de génération en génération mu nekk. Mhm. loo xamante ne daal du dem sa jëmm daal. waaye dinañ la si gis dinañ la si dégg. mu ne ma na man kon naa mu ne ma baa am nga këyit mu ne ma déedéet. mu ne ma dama bëgg. nga wool ma aale. allah nga fi aale aale Dieng. ndax boobu moment boobu moo yor gestion de projet au niveau du ministère ma koy nuyu bu baax. macha mhm. allah suñu mhm. frère mhm. ñu fekk mu ne ma dama bëgg nga dem fekk ko bureau nga waxtaan ak moom expliqué ko. mu xool nu muy fan fan lay jaar ba utal leen këyit. ak ban yoon la leen di wan. bañ demee fekk aale bureau 2019 macha allah. Aly Dieng jàpp si bu baax. Mhm. taxawuñu. Mhm. dooleel ñu si. Mhm. defar papier yëpp moo ko tiire. ñu si biir ministère bi ñu wàcc ministère dugg APEX. pour kayit yi mu yomboon trop si ñun. ndax GIE pour nga créer ko da da ngay nekk loo xamante ne. da nga si boole ay jaabante ay wax ay def yooyu yëpp. mais loolu yëpp fekkuñu si. Aly defar papier yi ba mu mat moo ko saisir moo ko defar. ñu jox ko tur yeeg yëpp kon madame la ministre ñu ngi koy sant. waaye nag ba sant gi jàllee tamit. man dama am sant personnel boo xamante ne dama ko am si moom. Mhm. ndax daf maa taxaw. Mhm. muy waaw mooy madame la ministre daf maa jàppale. à un moment donné. ñu mhm. ko ma ko si sant bu jàppale samay frère na ku xam Adama Ndiou jaay xam digganteem ak madame la ministre Ndeye Saly. loolu démb la. te ma bokk ak moom. kon yaakaar naa bu nekkul woon madame la ministre man sax sama frère rek war na tax ma jàppale ko. dooleel ko. muy def nag liggéey bu am solo ci commune démb ak dëkk démb. tey nag. niñ ko ci daan woowee lañ ko ci woowee ndax première édition bi. Mhm. yónni na délégation mu fekk ñu ba ñaari tali. suñu koñ. Mhm. macha allah ñoom tàncaane ñëw. Mhm. ñoom ñëpp ñëw. mu ñëw indi enveloppe dooleel ñu jàppale ñu. moo tax chaque année muy daaw ba mu nekkatulee ministre muy ren ji ba ba dooleel jigéen di existé tant que madame la ministre la dooleel jigéen marraine bu muy am madame la ministre day sali si jiitu mooy nekk sa kaw. waaw loolu moom loolu moom <laughs> devoir la ci te obligation bu ñu am la ci moom moo ñu ko ci kon nag madame le ministre day sant niñ la si woowee niñ la si daan woowee lañ lay woowee dañoo bëgg bi yoon nga ñëw nga xam ne say doom ñoo woote nga xam ne say njaboot lañu mm-hmm. nga xam ne dara mënul dox si diggante bi daal mm-hmm. dooleel jigéen da lay da lay reconnaissance ba faaw mm-hmm. ndax li nga def kon nag maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la woo bu baax a baax ci alors sa taxawaay nag dafay am na solo waaye bu ñu ñëwee un peu bari ba tey dañuy euh, si Grand Dakar bu ñu waxee Grand Dakar euh, dinañu wax buntu ba dinañu suñu mm. kilifa di la commune de Grand Dakar di euh, mm. tey képp ki nga xamante ni yaa ngi yor sa mouvement wala yaa association ñoom tamit bu ñu la gisee nga am doole la siy jàppale na xam depuis bi nga xamante ne créé ngeen seen mouvement bi ba tey jii di édition ndax monsieur le mhm. di ko ziar bu baax a baax. Mhm. di ko jox wàccuwaayam. bu mhm. wér woon di ko wax bi. moom toujours duñ def lu ñu jaar si ndax la. ñoom tànkam la. mënuñu di ko remercier moom tamit ndax première édition bi xalimee ngaa ko ko xam-xam ne. macha allah ci Jean Baptiste la nekk tonton bii boo. fa ko xam-xam ne dafa am cër ci mairie ñu ngi koy nuyu nuyu ko tos bii boobu suñu chef de quartier ñu ngi koy nuyu bu baax taxawu nañu bépp démboo njaay daf daf ñoo yóbbul po daf ñoo ubbil porte yi macha allah yóbbu ni ba si meer tey suñuy loxo di comme ne meer ñii dañ leen doon jàppale chaque année a jàppale leen bépp démb yàggul ñu waxtaan ak ñun ñu jox ko carte d'invitation bi aussi première bi dafa yónni den dafa méga macha allah defal ñu chèque jàppale ñu si ñu ko si sant moom monsieur le maire di ko ko ni mu ko doon defee daal na ko defee. na ko tollantiwaat na ko ndax mi ngi mi ngi wàcc nee président la bëgg doon. yàlla na suñu borom jàppale. xam <laughs> ah. ah. maa la wax loolu alors alors buñ ñu jógee Grand Dakar dañuy ñëw euh, biscuiterie ndaxte ñu affaire yi nu mu bindoo la bu ñu nee biscuiterie dinañu wax euh, le maire de la commune de biscuiterie di Mouhamed Djibril Wade moom tamit ndax yegg si ngeen si moom. di nuyuwaat ñu ngi koy nuyu baax monsieur le maire. di jox mm-hmm. ko jox wàccuwaay. dëgg mm-hmm. la démb laa fa ànd ak siraam yi. Mm-hmm. ah dem ngeen fa waaw dem nañ fa. recevoir nañu recevoir nañu. wax dëgg yàlla si biir xam nga kan yi doon am. 2019 bi. Mm-hmm. moment yooyu 2020. Mm-hmm. moo taxoon. Mm-hmm. fekk ko fi. fekk ko fi fekk ko woon. mais du tee yónni woon na Médoune mi nga xam ne moo ko si teewal. dégg dem ba gisantee Médoune wax ak moom. dafa woo directement monsieur le maire gisantee ko. mu ne fekk leen ma ba sama bureau. ñu toog ak moom mu ne xamal xamal na leen année dafa fee fekk ko. waaye cette fois ci fekk na ko dana def le tout. incha allah rabbi da am taxawaay moom sax. dinañu dooleel dinañu si jàppale moom monsieur alors ma ma ma bàyyigum la nga wéeru nga soufflé tuuti euh, ma daal ñëw si waa mouvement euh, gilet euh, orange Sénégal nañ lañ ko waxee sànq doon na benn mouvement boo xamante ne base bi Grand Dakar la doon nañ benn mouvement boo xamante ne ñoom lépp li nga xamante ni social la mouvement gilet orange da siy dox lépp li nga xamante ni organisation la mouvement gilet orange Sénégal da si dox di bopp di président président du mouvement bi di Jules Sognane maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax encore une fois Diallo président organisation du mouvement euh, Gilet Orange ndaxte ñoom dañoo am pàcc bu am solo bi nga xamante ne war nañ ko liggéey si bésu le 16 euh, décembre fii si esplanade bu ñaari tali si mouvement wu kii di euh, GIE dooleel jigéen donc Lamina ñu ngi lay nuyu fii si suñu plateforme Web Info c'est mon ami ah <laughs> c'est un frère mais dafay yëbaate na quoi alors moom daal lay bay nga daal di nuyu mbokk ñi seetaan tout d'abord. bon maa ngi ziar ñëpp di nuyu sénégalais di nuyu ñi seetaan 8info. Mhm. di nuyu Sadio Fat ak Idrissa cadre bi ah waaw sama gars nga waaw loolu mu am noonu parce maa la yar sama waay nga. <laughs> bon di nuyu ñëpp ah, ah di nuyu mouvement bi. Ah. Euh, di leen giar di leen bëggee quoi. Mm-hmm. waaw ñaaw gën a. alors bu ñuy ñëw un peu ci mouvement euh, gilet orange Sénégal. Mm-hmm. donc yaay président organisation bi ba ñuy wax un petit peu euh, ci mouvement bi fàttalikuwaat mbokk yi ñuy seetaan lan lay doon. ok mouvement Gilet orange euh, nekk na mouvement boo xamante ni. Mhm. ba mu juddoo yàgg na yàggul ndax mi ngi judd 2020 ci Covid bi. Mhm. mouvement Gilet orange li ko tax a jóg euh, quartier ñaari télé bi moo leen tax a jóg. Mhm. ñun dañuy yëngu ci social boo déggee Gilet orange Sénégal social. mooy lépp luy yëngu ci social ñun dañ ciy dugal suñu loxo ba mu jeex. ak lépp luy yëngu tamit ci wàllum événementiel. dañ ciy dem ba mu jeex parce que ñun balaa ñoo. bay di dem ci àll ba ñu def ko ci suñu commune ba pare. parce que commune bi bari na ay événements yi fi am. mais lépp lu ñuy def rek il faut nga dugal ci gilet orange pour ñu mën a dem. moo tax tey euh, waa association dooleel jigéen bi bi ñu taxawee tey. wax ñu seen programme. ñun automatiquement daaw ñoo ko couvrir woon. ndax nekkoon nañu foofu ak ñoom événement bi réussir. neex macha allah. léegi nag ren pourquoi pas ñu ko mën a léegi nag ren dañoo pare ak équipe bu taxaw. Mhm. ñu taxaw couvrir seen événement bi jàppale leen lépp luy installation matériel logistique bi. Mhm. pare nañ pour taxaw pour jàppale leen ci parce que gilet orange gilet orange ñaari tali la gilet orange Sénégal la. Mhm. mais ci ñaari tali la njëkkee parce que doomu gox bi ñoo xewle ñoo woote kon ñun ñu taxaw di xaar kenn mu ñuy naan ñëw leen wara bu leen ñëw. moo waraloon tey suñu teewaay te ñoom ñëw nañ suñu chaise indi lañu lettre waxtaan nañ ak ñun te ñu ngi koy rafetlu di leen remercier bu baax ci loolu parce que lu am solo la nga nekk ci commune ñu bàyyi xel benn mouvement nga xew la dara ñëpp ñëw ne ah dem leen ci mouvement bi dem leen ci mouvement bi boo ko defee rek yow yan nga ñu loo xamante ni tey dafay su suñu daal di remercier tamit waa Jules Orange bu baax parce que tey ñoom seen liggéey la di remerciement bi ñu ngi koy jiital ci Jules Sognane président bi Binta Bari ak Joël mu ngi leen di ziar ñun ñëpp di bëggee Aziza. Mm-hmm. gars yëpp maa ngi leen di bëggee. Mm-hmm. la mooy secret jule Orange Sénégal ba tey lépp li nga xamante ne mi ngi xew si euh, Grand Dakar ñaari tali euh, Biscuiterie euh, d'ailleurs aussi tamit si yeneen gox kenn ku ne dañuy xalaat jule Orange Sénégal la mooy secret bi ba tey gars yi lépp li nga xamante ne mi ngi xew dinañ si woo waa jule Orange. secret jule Orange lenn la. Mm-hmm. mooy solidarité bi. ak bëgg goxam. loolu la secret bi mooy dañoo solidarité bëgg suñu gox. Mhm. te képp ku fi xew la tamit dañoo bëgg taxaw la taxaw boo xamante ni ba beneen gan buy jógee ci biti sax. Mhm. bu ñëwee sax day naan ah ñii kat déggoo nañu. Mhm. parce que ñiy organisé ñëpp ci secteur bi lañ dëkk. moo tax ñun suñu secret. mooy li ñuy njëkk a def avant tout mooy jox àq ci li ñu nekk. ñun loolu tax la da ciy teg te looloo tax yàlla daf ñuy dimbali. moo waral tey suñu secret bu gën a mag loolu la. mooy dañ ciy jox àq. foo ñu gisee ñu sol rek. xamal ni am nañ xew-xew. ba ci jibluwaat Wade am na événement yu bari depuis loor ba tey. loox mu ne jiital la jus orange. loox mu ne jus orange. ñun bàyyi ñu dara lépp lu ñu waay woo dañ ciy ñëw. alors ñu ngi lay di nuyu bu baax a baax kon donc ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci mouvement Gilet euh, Orange Sénégal léegi nag yéen ngi ni waajal jàppale euh, seen seen jigéen seen yaay booy wala seeni jigéen sax si euh, li nga xamante ni moom mooy seen événement bi le 16 bi ci Esplanade Niary Tally yéen ngeen doon ci ay partenaire waa Gilet Orange tey ci organisation bi ana ban taxawaay ngeen ci def ci communication ba képp koo xamante ne yaa ngi dugg ci ci entrée wu Niary Tally nga daal di yëg ok côté communication bi ñu ngi koy jàllale ci Facebook WhatsApp lépp ñu ngi koy jàll parce que defar nañ flyers boo xamante ni mooy waral pour côté communication bi jàll bu baax ba ci Jules Sognane am na lu ci jot dugal ci page ba nit ñi ñu ngi koy gis mi ngi intéressé nit ñi te en plus tamit événement bi nekkul lu ndaw nekkul lu ndaw dafa nekk loo xamante ni képp kuy jigéen war ngaa mën a ñëw taxaw ci biir événement bi góor yi tamit war nañ mën a ñëw taxaw soutenir leen jàppale leen. Mm-hmm. parce que Aba que surtout thème bi. Mm-hmm. voilà thème bi surtout thème bi parce que maa ngi si doon ñëw. bi dafa am solo trop. te euh, thème bi ñëpp la concerné. Mm-hmm. muy góor di jigéen war nga mën a ñëw toog nga déglu leen. nga xam boo amee sax sa dërëm nga def si parce que ay jigéen ay jàmbaar lañ. li ñu organisé nii dafa yombul ci jigéen parce que jigéen foo leen fekk ñi dajaloo mbooloo rek ña ngay teesante wala kii ma ngay wax li ma ngay wax la mais ay jigéen dajaloo am idée bu rafet bi kon ñi mat nañoo bàyyi ci réew daal man wóolu naa leen ci bépp côté moo tax seen événement bi lépp lu ci jule orange man da koy def bu soobee yàlla. alors merci beaucoup léegi nag ñu daal ñëw si yow ba tey ñu tëjee ko foofu. Euh, bu ñu nee jule euh, orange Sénégal xamee nañ ko si defar ay gox euh, depuis si mois décembre ñu ngi waajal fin d'année bi daanaka jeex na ba noppi sax la ñuy wax jule orange lan lay en beauté si mois de mois bi nga xamante ne moom mooy décembre bi. bi ñu ngi waaj ñaari événement yoo xamante ni. le 25 décembre. Mhm. le 25 décembre dañoo bëgg a. Mhm. defaat biisaat randonnée bi. mooy randonnée bi set ci biir set ci biti. Ah. mooy dañ ko bëgg def jet ah. ba xayma bu lépp luy deux voies ñaatali ba bëgg nañ ko bale ba mu set. Mm. dugg ci bayaal bi dindi bañ parce que bayaal bi dafa salte nit ñi dañ fay toog di lekk di sànni di saw ak lu nekk. Mm-hmm. ñu ne dañoo jël décision boo xamante ni mooy le 25 décembre dañoo bëgg a wàcc sur le terrain. Mm. ànd ak équipe bi yëpp di woo ñëpp nag ñu ñëw. Mm. pour ñu defar ñaar mu set léegi nag ñuy waajal lu garaaw 31 décembre. 31 décembre 31 décembre. si la orange réveillon mooy am biir ñaar tali. lu musul am. waaw waaw. Hmm? parce que gars yi dañu daan dem ay. pla <laughs> parce que. wala euh, waa GIE waa GIE la mën jox <laughs> parce que gars yi hmm. dañuy faral di dem ay place di defa taali pétale wala place de l'indépendance waa effectivement léegi nag ren dañ ko bëgg jël indi ko ci Esplanade ak Niary Tally hmm. parce que suñu doom yi ak suñu rax yi hmm. ñu bañ dem mais dañ koy def ak loo xamante ni lu aar lay nekk hmm. mooy dañ cee def ak Azico Azico Ndiago ñoom lañ bëgg ñoom ñoo laan bëgg ñu joué ko balaa mbir mi asiko jeu jeu lu neex ambiance ñaar tali bi xale yëpp dajaloo bu minu jotee gars yi taal pétaal yi ku ci nekk ak sa doom sa njaboot bëgg nañ incha allah ci kàttanu yàlla bu ñu paree balaa deux heures ñëpp delluwaat seen biir kër pour xale yi gën a mën a nekk ci sécurité tamit parce que xale yi mënoo leen bàyyi ñuy taxawaal di wër fi ñuy taalee pétaal wala fu mu gën xumbee moo waral ren ñu bëgg ko def ci esplanade ñaar télé bi le 31 décembre. ok merci beaucoup donc ñu ngi lay euh, a baax si kàddu yu am solo na ko moom mii di euh, Lamine Nar moom mooy président organisation bu Gilet Orange ñoom dañoo jàpp si li xamante ni euh, moom mooy événement wu GIE doole jigéen fii si esplanade bu ñaar télé le 16 décembre. alors Amina fan lan lan ngay terminer si li nga xamante ni moom mooy entretien bu ñu def tey ngir waajal le 16 décembre fii si Deux Voies wu ñaar télé ban appel ngay def. ah macha allah dolli di sant. Mm-hmm. ak di gërëm rek. Mm-hmm. ndax ku ñeme ku ne dañ laa dee. Mm-hmm. te yaakaar naa comme yéen mi ngeen def. ñu leen ci sant di leen ci gërëm. merci beaucoup. Web ñu leen ci sant di leen gërëm. bu baax a baax a baax di jiital sant bi. Sadio Fatick. ndax jàppale rek dafa fort. te duñ nekkulee chaque année. baare yi kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm. di wax xëy na lii nii ñu ci xaar ñëpp. Mm-hmm. muy Boy Dakar bi nga xam ne mm-hmm. Ousmane moo ko géré. Mm-hmm. Ah. suñu grand Baba Ndiaye. Mhm. ñu ngi ciy xaar ñëpp. Mhm. suñu tons maama mi nga xam ne tey moo ñu communication bi ñeenti ak Sirel. ñu ko si sant dafa waroon teew fii mhm. takk di am suñu koñ. moo ko téye woon sax dama kaa fàtte woo. mais dane ma woon boo leen accès ba toog ngeen woo ma. mais xam nga xel ba ngay commencé nee naa la nañ xaar tuuti takk jàll. su ko defee mu mën koo teewee nag moom lii. daf cee war a bokk. ndax moom moo communication bi. moo yor lépp lépp moo yor lépp. kon amuñu fayam. dañ koy ñaanal tons maama bu baax a baax a baax di ci woo. Mhm. doomu Grand Dakar yëpp. Mhm. di ci woo. Mhm. képp ku dégg appel yi. di wax bàyyiwuñu benn journaliste Grand Dakar mm. UGB ñaari tali mm. bàyyiwuñ kenn mm. képp koo xamante ne mën nga ñëw jàpp ci say jigéen yi jàpp ci sa mm-hmm. sœur yi mm-hmm. lay woo pour nga ñëw jàpp si mm-hmm. di ci woo bépp bonne volonté ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ndax yaakaar naa adim si ñun gisante wuñu ak moom benn démb waaye waaye waaw adim si macha allah jot na kàttam ndax dafa bokk si parents yi gis nañ li muy def ci jeunes yi. Mm, ndax ku mel ni Siraam mm-hmm. see insister bu baax a baax a baax ndax mm-hmm. moom xam na ko nag Ousmane a tax. Mm-hmm. dèjà kartam rek Ousmane lañ ko bataleel. ndax cër bi mu am si moom. macha allah ñu doon li tamit di sant Ousmane Dabax moom. ndax daf see jàpp. fan yi affiche yi xam ne gis nga ne. remercie le GIE Doole Jigéen remercie Ousmane Dabassi. ton sant nañ ko si bu baax. gërëm ko ci ndax acte bi nga xam ne yëkkati na ko def ko ci biir GIE bi. ñuy sant Baba Ndiaye bi nga xam ne tuddee la ci. Mhm, Baba Ndiaye ndax tuddee woon moom man dafa forcément parce que daaw daf ñoo defal surprise bu mel nii. Mhm. wool ñu ñu ñëw toog fii. mu jël temps jël micro defal ñu. découvrir groupement bi mooy lan. ñu ne pour ren moom balaa ñuy xalaat kenn ku ñuy tuddee suñu bés dañ si dañuy tuddee Baba Ndiaye. ndax ndaw la. Mm. jeune la mais fierté Grand Dakar la. Mm-hmm. ndax mm-hmm. képp ku mm-hmm. yeewu ci revue de presse. di dégg baatam rek sa xol seet. waaw nga ko non da kontaan da kontaan si moom yàlla xam na ko <laughs> di si woo. <laughs> Uh-huh. képp koo xamante ne jigéen ñi mm-hmm. tey bàjjen Nasira mi nga xam ne mu ngi Grand Dakar fii di bàjjen représentant de bàjjenu gox da Grand Dakar mm-hmm. moom dafa bokk si tuddee dafa am cër fii nii mm-hmm. bàjjenu gox yi am waaw dafa am dafa am fii nii Grand Dakar fii mënu koo bañal na chaque année ñu gis taxawaayam ñuy ñaan mu gën a farlu ci bës bi xam ne ay doomam ñoo xew la xëy na mënuma tudd ñëpp ndax su ma tuddee damay cuub mais tey jiital sama waa kër ndax chaque année gars yi dañuy sacrifié wu. commencé si togg laa xiitu suba si yàlla xam na ko. ñëw si ceeb yi. ba ci ngoon gi kon loolu du ay caaxaan. Mhm. te loolu sa kër rek ñoo la ko mën a gérer. Mhm. sama mag yi dañuy sacrifié wu sama yaay day jóge ba Thiès. Mhm. déplacé wu xam nga sama tante yi nekk fii dañuy teel a aménagé def ndax lan ay gan. ndax nit boo wootee rek woote la. xam nga kuy ñëw ak ku dul ñëw kon dañ see farlu ñoom farlu bu mag sëkk. ma leen si gën a soññ. ci sonn waa GIE doole jigéen di leen wax ne leen mhm. ñoom duma leen sant mhm. parce que lii dañ koo moom mhm. te dañ seen yëf la ndax seen yëf la ndax seen alal moo ko def su doon sama presse sama GIE man ñu bind sama tur sama photo moo ci ne kon ma publier ko fépp seen photo rek mais ñoom ñoo ko moom looloo tax comme ñoom ñoo ko moom seen alal moo ci dem seen xaalis mooy tax année bi di durer. Mm-hmm. ñuy def denc tabaski yi. Mm-hmm. di def cotisation yi di def mm-hmm. ndawtal yi. ba tey ji GIE bi mën a dox ba heure bi am compte bancaire am lépp. bañ na ko ba signature sax ñun dañ ko am. cachet dañoo am cachet dañoo am signature lépp loo xam dafa dem ci groupe bi suñ ko caché wul signé ko. kon loolu valable ah, kon loolu ay nit yu am fulla ak fayda ah. ñoo koy liggéey. ma leen di sant bu baax di leen wax ne leen. lii. nañ ko jël téye ko ndax seen yëf te da nga koy fonk da nga koy da nga siy farlu. ku gis lii xam ne. Mm-hmm. ak su tey toogul chaque jour. Pendo mm-hmm. mais toogul chaque jour. Marème mm-hmm. loo toogul chaque jour. tuuti mënuma lim ñee ba ngor lañ jugee. déplacé wu jël tax kii nii jugee gis na dafa amoon yenn Rufisque. Ah, fa la jugee léegi ak ah, kon pour wax la ne la ñun bëgg-bëgg bi si raawat moo ci nekk. chaque jour nit ne ma yow loo gis jëlal jigéen lu tax nga bëgg ko ak loo ci def. ma ne leen yéen comprendre loo leen bëgg dafa fort. te man yëg-yëg bi ma am si jigéen ñi ak fi ma jaar ak instant bi ma amee solitude sama vie tax na ma toog créer Jeux doole jigéen ndax li ma si doon xalaat mooy détresse stress ak yooyu yëpp pour que jigéen am fu muy waxtaanee mm-hmm. fu muy di fu muy épanouir fu muy divestir yi tey looloo waral ñu créer ko kon nag maa ngi wax ne mm-hmm. loolu ñu suudee ñu gën a jàppante gën a booloo gën a jël bés bi def ko suñu yëfu bopp mm-hmm. teel a ñëw xam nga teel a pare teel a jóg su ko defee ñëpp mën na faa fekk. Mhm. lii daal lay def di woo waa Grand Dakar ñaari fekk ku mhm. kon ku bëgg découvrir ku bëgg a découvrir euh, GIE Dooley Jigéen yaa ngi si plateforme yëpp. si oui Facebook. Euh, waaw euh, ku tapé GIE Dooley Jigéen di ko gis. Instagram ainsi de suite yéen ngi si mhm. plateforme yëpp daal. waaw macha allah di si plateforme yëpp doole jigéen Facebook. xam nga WhatsApp bi. numéro yaa ngi ci affiche yëpp numéro yaa ngi ci xamante ne contacté nga ñu 77 444 90 77 di ñu jot mhm. ak 208 90 75 yaakaar naa bu Astou Paye mhm. di ñu jot mhm. waaw di wax foire bi nag dafa important te ñu dañ koo fàtte waaw foire bi mais dañ see waroon insister ndax def nañ ko daaw dañoo bëgg ren foire bi dafa gën a yaatu kon foire bi lu mu ñëw rek mhm. lu gars yi teel a ñëw ci foire bi rek doyul ndax mhm. foire bi mooy li nga xam ne moo ñu définir mooy déterminer jigéen ñi mooy déterminer ni ñoo ngi ñu ñëw ñi ñëw ci bés boobu yëpp dinañ gis ne mhm. ñii ci lii la ñuy liggéey matériel yi la utiliser lii la ñuy jaay lii ak lii bëgg ñu jàppale ñu lii mooy acte daal. beaucoup mbokk ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, Amina Fall moom li nga xamante ne moom mooy coordonnatrice euh, li nga xamante mooy mouvement GIE euh, doole jigéen leadership développement féminin donc ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax si dalal bi nga xamante ni dalal nañ lañ ko ju daal di développé si thème yu am solo waaye daal di leeral mbokki internet yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan si kàddu dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni. Euh, Pendo yëkkati na ko fi ainsi de suite euh, keneen euh, ku si kan moo si toppoon sax. Sira Sira aussi tamit yëkkati na ko mu doon ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati nañ ko si ñoom tamit si li nga xamante ne mooy émission bi le mouvement Gilet Orange Sénégal moom mi nga xamante mooy président d'organisation ba di euh, Lamine moom tamit développé na développé na si bu baax a baax donc lii li nga xamante ne moom mooy euh, entretien bi nga xamante def nañ ko ci euh, doole jigéen donc dañuy woote rek def appel donc rendez-vous le 16 décembre fii si deux voies ñaar tali di si woo ñëpp di si woo communauté NGB yëpp ñu daal di ñëw jàppale suñuy jigéen daal di ñëw jàppale suñuy sœur daal di ñëw jàppale ñi nga xamante ne dañuy dañoo bokk suñu kon leen li nga xamante ne war nañ ko soo def rek boo leen contacter rek di ngeen leen mën a jot daal leen di jàppale si événement bi si cadreur bi ñu ngi nuyu bu baax a baax moom mii di Idi waaye si réalisateur bi ñu ngi nuyu Jules l'international ah, bu baax a baax waaye si waxukaay bi a baax a baax di leen kontaane depuis états ah, maa ngi leen nuyu bu baax a baax depuis France maa ngi nuyu mon ami mon frère ah Maha Diabaté maa ngi lay kontaane bu baax moo grand la wax euh, reménage encore une fois di ñaanal jàmm yàlla la suñu borom te defal taw feex bu baax a baax en a Euh, beneen entretien ak Aba le vrai bye bye à très bientôt merci beaucoup